Pathé Ba. Pathé Ba hmm. c'est bon alors Pathé ginnaaw bañ la mësoo bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo la dal démb metti na lool Sénégal yëpp ñu ngi koy naxarlu waaye nag lu war a am faw rek mu am ndax lu naf sin zaay xatin ti hmm. nak nga ko dundee ndax démb ba léegi itam yaa ngi ci biir hôpital bi. Euh, maa ngi wax inna lillahi inna ilayna na maa ngi masaw Sénégal yëpp euh, tiis bu ñu am ak nakar bu ñu am maa ngi koy jàppee ne yàlla sunu borom moo ñu may ndogal ji. Euh, donc euh, métti na métti boo xam ne man sama doom ak sama jabar yëpp mm, jaar nañ ci ñàkk seen bakkan euh, ndogal yàlla moo suñu borom moo ñu natt ci loolu mu ngi doon dem ci benn nijaayam bu nekk dakaar ci lañ tàggoo samedi mu départ ci bijou Tambacounda alhamdulilah maa ngi sant yàlla maa ngi fanaan ci l'hôpital bi depuis démb ba léegi maa ngi wax état bi nañu jàppale ñu am yërmande ñu xamee ne Sénégal euh, suñu suñu réew la suñu dëkk la kon donc ñun ñoo war a jàppalante quoi ah métti na métti boo xam ne nii moom macha allah sama jabar laa ñàkk si accident bi ak sama doom ak sama doom bu tudd ñoom ñu ngi doon dem actuellement dakaar ci benn benn nijaayu sama jabar mhm. voilà mm. trois trois ans la am mm. ñoom ñu ngi dëkk Tamba Mm. doon dem Dakar. doon dem Dakar waaw. metti na trop mais nag euh, faw rek ñu nangu dogal yàlla suñu borom naam ba nga ñëwee sax euh, nangu nga dogal bi waaye leneen lañ fi fekk dafa gën a la gën a traumatisé. effectivement nangu naa dogal bi nangu naa dogal bi macha allah. kon mhm. mm. ñu ngi lay mos bu baax a ah, alhamdulilah maa ngi sant yàlla daal alhamdulilah maa ngi sant yàlla. alors. bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo la dal. métti na lool naka nga ko dundee itam. waaw euh, salaamaaleykum maa ngi leen di fay seen nuyo waaw euh, di leen di rafetlu vraiment seen ñëw bi fii ak ni ngeen di saytoo nit ñi euh, maanaam ci li leen dal fii vraiment loolu rafet la quoi ñëpp ñu ngi koy rafetlu ah di am vraiment aussi xol bu métti xol bu naqari ci li xew-xew bi xew nii vraiment Sénégal yëpp la métti neexul kenn neexul kenn man mii personnellement. j'ai mon garçon qui est là mais alhamdulilah euh, maa ngi ñaanal ñi nga xam ne aussi ñoom la yàlla jël seen bakkan di ñaan yàlla yaa rabbi yàlla xaare leen ci àjjana fii daf yi yomb na ci yàlla yal na leen ko yàlla defal di ñaan euh, waaw sama garçon bi bon dafa am fracture euh, ci kii bi ci non dama depuis ma ñëw hôpital bi affaire bi gaaw na tuuti de. Mm-hmm. waaw parce que di di ma yóbbu si rajo bi. Mm-hmm. ñu xool ma pour sama tànk bu dee daamul après sama tànk bi noonu daamul noonu après ñu ñi defar ma sama tànk bi rek ñu ñëwal. waaw. loo doon def dem fan. maa dem liggéey maa dem Dakar. da ngay liggéey man. man maa liggéey kii si marchage yi. si marchage marchage. waaw ah, marchage ngay def. waaw ah, ok waaw. Massa métti na lool waaye nag euh, foor ñu sant yàlla. am na ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan. yow yaa ngi sa bakkan. di dund. alors loo ñu mën a wax tuuti rek ci niñ ko dundee. naam métti na waaye foog nga góorgóorlu itam. waaw loolu dëgg la de. il faut ñu góorgóorlu rek ñu gérer nii rek parce que asdam bi depuis moo xam ne sama bopp mosuma gis si asdam bi bi waa trop waaw waaw maa ngi dem Dakar Tamba mu asdam bi kay mosuma gis asdam bi. fan nga jógee man maa joge Tamba man dem ah. Dakar. Mhm. waaw ñu ñëw ñi passé Kaffrine bii rek tuuti rek suñu pono ginnaaw bi mu toj. Mhm. waaw pono bi mu toj la dugg si beneen kii nii mhm. waaw man nag ginnaaw nekk. ci ginnaaw nga nekkoon waaw waaw ci ginnaaw laa nekkoon. ba nga yeewoo gis nit ñi. waaw ñi génn àdduna. waaw waaw sa xel ci lu mu njëkk dem. sama xel kay dem na ci karaw gay. Mhm. billaay man kay man depuis ma génn sama bopp gay moo ne mi sant yàlla. parce mhm. que nit parce que bari dee na. Mhm. yu bari blessé na yu bari tànk yi damm na. loolu kay doon na waar man depuis ma gis rek sama tànk bi dammul kay. dama sant suñu borom. waaw waaw. waaw. rassurer sa waa famille nga ne yaa ngi ci jàmm bu baax a baax. waaw non woy na sama woote woote na sama famille. Mhm. waaw sama papa ñëw na ak sama doom mag yëpp ñëw na. Mhm. waaw. yaa ngi woon ci ginnaaw foofu nga toogee woon. waaw maa si ginnaaw maa toog si ginnaaw. Mhm. waaw fekkee man maa yore sama téléphone maa connecté. na mu toj rek. après mu dégg gars yi ñuy rek. après man ma jóge rek sama bam bam bi. toj nag ñu ngi wax waaye bi ni mu demee. no nga expliquer ñu ko rek panneau bi moo toj wala dañoo mbëkkante. panneau bi moo toj. Mhm. pano bi man ke man ke damaa dégg panneau bu toj. Mhm. panneau bi moo toj. Mhm. panneau si ginnaaw ka kanam bi. moo toj pano bi moo toj dugg si eh, beneen bis bi. après mu saaraan dugg ci beneen bi waaw waaw mu saaraan. après chauffeur bi mu affolé mu dugg si beneen bis. waaw moo tax. waaw li mu wax noonu. Ah, waaw noonu de noonu rek la demee yëfi métti na. Mhm. waaye nag ñu sant yàlla bu baax. ndax ah, yàlla moom lu mu def. li ñu wax rek noonu la. nañ ko dundee noonu. ah sant yàlla gis na ni yàlla doxalee. am na ñu bari jàgg na ci kaw ay niw yu bari yàlla def na mu ngi nii dem na ba am na fex sant yàlla ba mu ngi toog mën a net li histoire bi nu mu demee. sant yàlla la ñu sant yàlla rek. loolu la laa gis waaw sant yàlla mhm. maam booy gannaaw bi ñu la masawoo jaar la li nu bokk tey ñu fekk la ci buntu l'hôpital bi nga toog ñu bàyyi la nga nuyoog ñu lay seetaan ba noppi maa ngi nuyu waa hôpital bi di nuyu man ñu fi fekk di nuyu yéen xam yi ngëm kamara bi di leen won ne lii ndogalam suñu borom bu yegg see na jaam day nangu dogal ñun de am nañ ci mbokk démb ba te yëguñu ko léegi lañ ko yëg moo ñu tax a ñëw fii waaye nag dañuy sant yàlla sant yónnent ba te xam ne lii lu yàlla dogal la di leen ñaanal ñoom ñi dem yal na leen yàlla xare àjjana ñi ci des yal na laa yàlla yëkkati te bañ a tëral kenn ci baax ab yàlla yónnentam maam booy mën nañ xam ki gaañu lan la ci yow ki gaañu nag suma goro la bokkat suma goro ngi nii taxaw ndax xam nga man mag laa du ma ko ba mu ñëw ci hôpital moom kenn damaa jël oto ànd ak moom ñëw ci hôpital bi bàyyi nag ki gaañu moom kii la bokkat bokkat ak man man kii laa bokkat ndax suma doom a koy denc waaw. tey fan. ñu ngi ci dëkk bi Tarawo waaw Kaffrine dëkk Tarawo quartier Tarawo fa dëkk waaw. tey lan ngay dénk chauffeur si ak ñi nga xam ne ñu ngi daw ci tali bi. daw ndànk dal ndànk. loo gis nag yàlla ak suñu borom la ndax sëfër buy teg tànkam ne bisimilaay bëggul daanu lu yàlla dogal la bon nag nañ nangu yëgal suñu borom waaw loolu teg ci sëfër si waaw jërëjëf jërëjëf. soxna si ñu ngi lay nuyu di la masaw li nga xam ne moom lañ bokk di la ko jaal bu baax tey naka ngeen yëgee accident bi ak ki nga xam ne bokk nga ak moom. metti rek. accident moom foo ko natt rek paase na ko ndaxte metti na daal metti na metti na ko bokk ko koo bokkalul ñëpp ci ñëpp la metti ci ñëpp la dal ñu ñaan daal yal na ko fi yàlla yemale rek yal na ko fi yàlla yemale sëfër si ñuy def ndànk di teey mais moom yàllaa ko yor waaye namit ñuy def ndànk xam ne ñuy def di dawal ndànk ndax di bu yebee ay doomu aadama xam ne ay doomu aadama nga yeb waaw loolu daal laa am lu ma ciy wax metti na daal metti na tey ki gaañu lan nga bokk moom góor la wala jigéen. góor la ki gaañu sama kii sama wujju peccorgo mi mbokkam la ñun yeex nañoo xam ni sax ñun ndax démb maa ngi naan leen ñun dañu ngi toog waaye xamuñu sax na am nañ ci mbokk wala déet léegi nii lañ ko oo ni ko da ci la bokk pour ñu abal leen sër pour ñu yóbbu ko mbuur waaye ñun yëguñu ci dara sax kii moom sama wujju peccorgo la. Ah, moom waa mbuur la léegi yaayam moo ko woo sànq wax ko ko ki gaañu tantam xam nga la. goroom waaw waaw ok soxna si ñu masawu la di la jàll li nu bokk tey lan nga ñu mën a wax ci ki nga xam ne génn na